ay tax wër la aw xur wër ay ay ndañ mant na ngay jóg ci xàll pour dem ba nga bëgg a dem ñu ne la da nga dem te ndar ak du boy lépp ne fa kooku ndar ak ndakaaru ko wax ci capital moo doon moo doon ñaari capital tubaab lépp ne fa mu ne leen da ngeen dem ba lu ngeen soxla dara uti ndar ak ndakaaru bu ngeen ko soxla dara man ko yàlla man ñi moom wérantiwuñu suñ tubaab lu wax dara waaye loolu jaaxaloon na de waaye gis na tey kii ku ñëwoon mos naa am am àll wala mos naa am jafe-jafe doo ko gëm day baax na ñu fekk wutoon démb ñu wax leen démb moo tax bu tey ñëwee mën ko téye waxtaane démb dafa baax boo gisee ma ñëw wax pap ka ne ko man international mhm. tur woowu mën naa jàll bu baax a baax parce que koy jàllale ak ngëm la dëkk bi nag dafa naqaree taxawale dara loolu mbirum saayir la ndax boo taxawalee dara dal na xooq sax mhm. daañ la ne nangam waaye ñi ñëw ne la lii kat boobu nangam nangam yooyu yëpp boo ko bàyyee xel doo def da xam ne ki ngay liggéeyal moom lépp loo ko defal rek wala loo ko tudde tudde na boppam lu ko raw mhm. moom borom Tuubaa lu la rëy lu sëñ bi lu sow tur rëy rëy sa diggante ak sëñ Tuubaa ba nga méngale ko moom ci dara ja tudd na boppam na ko waxal na ko boppam naa moom la nit di ko wax xafis sama si na am naa ci xam-xam loo xam ne dafa tedd ba kenn mënu ko bind ci ëpp kon boo may liggéey bul tàyyi ndax mooy sa njëriñ tey ëllëg daal ne waxtil awaajil la dina daamoo fi xidmati wa am na fu maaraamu na faj aajo ñu sax ci di ma liggéeyal te bu ëllëgee nga may na li ñuy sax kon kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa war ngaa rafet jot ci sa adduna dana jàkk sa àllaxira dana alhamdulilah borom kër gi firndale ci alhamdulilah ndax li mu aw nit ak li mu teg ñu toll nañ jamono man bi may ñëw ci daara ji fekk naa daara ji neex mhm. waaye ña jiitu woon bu njëkk mhm. nekkoon ay got ak xambaat mooy mhm. ñu daan ci xam naan da nga daan dañuy togg bi ak ñu koy naani waaye leen ñu naani barab sànkam da ngay naan ji ak fii daara kenn dara dëkk ba ñaan ndox naan bala nga dellusiwaat da nga naan xam nga kuy naane moom kenn ci ko mbuus ndox yaa nga nekk ko loolu lépp li ko waral mooy sos dara mooy natti bu leen dellu ginnaaw bu leen découragé loolu laa jublu ci wax ci hmm. ngeen tàmbali mbir bu neex Mm-hmm. bàyyi leen ko sori sori sori am na kilifa bu mag lu mm-hmm. bëgg soo may tudd turam ndax ginnaaw léegi vidéo yi daa xew mm-hmm. te jamono daa soppeeku vidéo mën naa dem ba adduna bépp li ko gis daa ñëw ne ko war ngaa wax ci sa wax dana woon yoonu mu takk takkul mbokk ah adduna di ko fi bàyyi yëf yi dem ba ëpp doole réew mi Ndakaaru coow la bari réew ba seeb la ne ko war ngaa wax sa dongo yi de ndax seen tool yi bari na mu ne ko seere la ci hmm. tey yaa ne lijjal nañu kon seere la tàmbali mu sew jàppal ne lu baax lislaam nii la meloon yoonu murit nii la meloon lépp lu waay bëgg ci lu baax nii nga koy tàmbalee hmm. kon bu demee bëri dana bari wàll yan nag mm-hmm. ndax lu sotti am borom mm-hmm. loolu bàyyi leen ko xel mm-hmm. dana bari ñoo xam ne booy sos duñ ñëw waaye ba dee ba yëf yi njëriñ teew ñu ñëw taxaw ni solo wan la ne